naashiri lxaqi wa naasiqi zulma munqizi lbashariyati min barafini lwayli walgumma allazi balaga risalata wa adda alamanata wa nasaha alumma wa tarakaha ala mahajati albayda layluha kannahariha la yaziqu anha ila halikun wa ala alihi wa ashabihi gurri almuhajjalin wa summi almubajjalin mushahidiya alawfiya min talfatatikum almufaddala télévision Futur Média nuhayyikum bi tahiyatil islamiyya wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooleem xalif généraux yi na ci biir réew mi ñaanal leen yàgg fi lool te wér lool nuyu kilifay yi réew mi nuyu njiitu réew mi nuyu borom kër gi ñaanal ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm ñaanal xalif généraux yi waaye tey jii xam ngeen ni mooy benn fan ci weeru Shaaban ñaanal xalifa bi Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ñaanal ko mu yàgg fi lool te ak njabootu Seydina Limaamu Laye gépp xam ngeen ni tey jii xel yëpp ma nga yoof tey jii xel yëpp ma nga Cambérène waaye xel yi ma nga ca Seydina Limaamu Laye waaye ñaanal bu baax a baax Chérif Aya Haydara xalif Cheikh na Cheikh Saad Bou Serigne Babacar Mouhamadul Mansour xalif général des Tidiane ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp muy suru Serigne Serigne Maodo Sy Mouhamadul Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Cheikhul Khadim yëpp moom euh, Serigne Mouhamadul Mountakha mbokk mi noonu am nañu mbégte Serigne Cheikh Tidiane Niass ma nga lew na Niassène Serigne Serigne Mouhamadul Mahi Niass ma nga ca Medina Baye xalif euh, Faydu Tijani nuyu leen ndokkee leen ci gàmmu démb ga ca Nigéria Thierno Mohamed ba Tall Khalif Omariya nuyu leen ñoom ñëpp ziara leen ndokkeel leen Cheikh Ahmad Tidiane Ba ma nga ca Médina Gounass nu ngi koy nuyu nuyu bu baax a baax Serigne Mouniru Njegeen ma nga Thiès euh, Serigne Abdourahim sekk ca Cene ba Seck mbokk yi mi ngi noonu ziar xalif généraux yëpp rek bàyyi wu ñu kenn jàll na ñëpp am jàmm réew mi am jàmm ñi nekk bitim réew te dëkk réew mi ñoom itam nu am jàmm àdduna bi am jàmm kañ lay del siwaat yéen a ko doon laaj ndax namm ko ci xam-xamam namm ko ci pédagogie am waaye namm ko soo ko dégloo sa cofeel ci Seydina Limaamu gën a dolliku sa cofeel ci njabootu Seydina Limaamu gën a dolliku waaye sa cofeel ci Seydina Isa gën a dolliku kan laa leen di wax soppee ñëpp xaritu ñëpp sëriñ maam Abdoulaye Kébé sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ndokkeel waaye di am mbégte lool lool lool ci wuy si gii nga wuy si waat nag télévision Futur Média waaye nag ñëw bégal si sa soppe na ci biir réew mi waaye nekk bitim réew di la ndokkeel baax ci bis bu tedd bu barkeel bile ginnaaw bi nu ñaanalee Thione sekk nu ngi koy jaal réew mi yëpp di ko masawu njabootam yal na yàlla yeesal yërmande ci kawam ak mboolem ñi génn àddina yal na yàlla yërëm leen sëriñ Abdoulaye nu ngi lay nuyu Kébé lay Maxtaar nu ngi lay ndokkeel bismillah bismillahi rahmaani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 walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa wa miqdaari alazim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alaaji Pape Hann ñi ngi ubbee suñu kàddu ci sant yàlla di nuyu jullit ñi fi nekk ci réew mi ak biti réew mi mm-hmm. waaye balaa ñuy sori ñu beral nuyoo bu tedd suñu xalifa ak xulafaa ci réew mi yépp ak njabootu Baay Laay ci diggante góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan bésu tey bii bésu tedd bii yàlla na doon njariñ rek ci réew mi yàlla def fi jàmm def fi sutura def fi xéewal yàlla dolli ci njaboot gi ak jubboo ak tàppo di la beral nuyoo bu tedd yow mi nga xamante ni yaa ñu dalal di la ñaanal yàlla yàgg sa taxawaay te yàlla dolli sa sutura dolli sa xéewal foog naa ni su ma fàttalikoo ci plateau daawaati jéeg mhm. la nu mujjee gisante man ak yow. wallaahi wallaahi <laughs> may profité sax ci occasion bi di la jaal sa wayjur. yal na yàlla dolli leeram ñu góor gu baax nitu yàlla bu mag. yal na yàlla yeesal xéewalam. di ñaan it yàlla yàggal sa kàddu sa taxawaay. di la wax ni kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax a baax. di gërëm it euh, seen group bii. Mhm. di ko teg ci loxo sa loxo nga joxal nu ko Youssou. Mhm. ak njaboot geeg buuba njaga kulim juum. waaye nag euh, yow kenn mënu laa fay. Mhm. yal na yàlla dolli sa jàmm dolli sa sutura. di leen massawu ci li fi xew bërki démb. Mhm. ndax yéen yàlla dafa dogal ngeen tëdd njaaxaanay mm-hmm. ñëpp ngeen jaboote mm-hmm. mm-hmm. ñëpp ngeen jaboote ngeen seet ni li fi xew keroog daal am na laal na xol yi ndax euh, kër gu mel nii méngoowul ak li fi xew keroog ndax ku ne xam na ni këru diine bu xew le lii nga ma defal moom nga leen di defal moom ngi defal fen kon njaaxaanaay ngeen tëdd kon kër gii waruñu seetaan kenn du ko yàq ndax këru diine ji la këru lislaam bi la yàlla na yàlla sange leen te jàppale leen barki bàyyi lay nuyu ñi ma àndal sama xar Ibrahima ak xale yi Saas Dak euh, Libaas di ñaanal bu baax xalifa euh, Diouf yal na yàlla dolli seen sutura te seen xéewal Pape barke Baye laay mu perd mi jërëjëf laay moom. am nañu mbégte mbokk mi noonu gërëm ñëpp ndokkeel ñëpp ziar ñëpp waaye nag euh, ndokkeel président yu Ndour moom itam jaal ko soppeem xaritam léppam coon Seck yal na yàlla yokk ko yërëm yal na yàlla yeesal de ci kawam Abdoulaye tey rek bég nañu. tey jii nu war a waxtaanee Seydina Limaam war a waxtaanee ku naqaree waxtaane ci réew mi nag réew mi wala koo xalaat rek mën nga xa mu neex a waxtaane mais Seydina Limaamu nag moom dafa naqaree waxtaane naqaree waxtaane gi mu naqaree waxtaane moom Seydina Limaamu ndax dañu dëkk ci réew mi di ay jullit ñu ni Seydina Muhammad ma nga tëdd ca Madinatul Munawwara ñu toog ba mu yàgg yàlla waxoon ci alquran ñu jàng ko ñun ñëpp ne moo mottali yonentu yi moom rasulullah ñëpp gëm loolu ñu toog ba mu yàgg fii ci Cap Vert am ko génn fii ne yonentu ñi ko weddi bari ñi ko weddiwul bari am na ñoo xam ne gëm nañu am na ñoo xam ne gëmunu ndax daloon na rasulullahi daloon na ku fi mës a jaar daloon na ay wëllu yu am na ñoo xam ni gëmunu weddiwunu ñu ngi ci diggante bi yuruntam googu moom Seydina Limaamu ak wooteem gi yan ndax am na yan argument yu tegal ñu ay argument yu leer yu téléspectateurs yi mën a dégg parce que ci réew mi la ñu dëkk yonentam gi ndax Seydina Limaamu moom dani moom moom ndax moom moo woote ni moom yonentu la yonentam gi moom Seydina Limaamu ak fii mu ko wootee ak bi mu ñëwee ndax yonent bu jàll am na lu yàlla wax ak moom charte yi ci ne ci yonentam gi moom ci Seydina Limaamu laa bëggoon daal moom Alxaaji nga leeralal téléspectateurs yi nga xam ni tey ay millions de personnes ñu ngi toog pour gën a xam kan mooy Seydina Limaamu yónnant gii ko yàlla yónni mu ne yàllaa ko yónni ah mm-hmm. ban argument nga nu mën a indil lu leer ba nit ñi mën a comprendre kan ay Seydina Limamou Laye. Euh, El Hadj jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax ci question bi nga xamante ni moom nga posé euh, si je me trompe bii mooy sama juróomi plateau man ak yow. wallaahi. njort naa ni tey lu ñu fi waxtaane rek daanaka waxtaane woon nañu ko ci at yi nga xamante ni. E moom moo fi jàll euh, di sawar lool ci tont sa tont bi euh, alhamdulilah bi nga waxee ni réew mi ay jullit ñoo fi dëkk waaye nag day bokk ci màndargay jullit mu nangu dogalu yàlla mhm. bokk na ci màndargay jullit mhm. jullit nangu dogalu yàlla mhm. du dëgg wax nga bàyyi laay yonentam gi ñii gëm nañu ñii weddi nañu ñii maandu nañ ci. Mhm. loolu nga wax. waaw ah yàlla dafa dogal nag li nga xamante ni moo méngoo ci moom lépp. Mhm. lu dal xel la ci moom puisque wax nga dëgg aussi réew mi kilifa yi fi nekk yépp Seydina Limaamu rek la ñuy jeex ay mbiram ci ay téere. Mhm. laa wane d'accord ay mbiru Seydina Limaamu téere bii wax na ci ADS wax na ci nangama sàngam borom xam-xam bay wax na ci loolu yàlla dogal na ci bàyyi laay réclame man aussi sama tontu à chaque fois en tant que jullit. Mhm. suma référence mooy alxuraan te ci alxuraan la ñuy waxtaan ci alxuraan lay tontu. ci alxuraan nga may yàlla moo ni allah lahul xalq wal waaw waaw. man maa moom jaam ñi maa moom dogal maay dogal. Mhm. alxuraan la. Mhm. d'accord nañu. yàlla moom ku ne xam na ni moom mooy faalun li maa yuridu mooy aji def lu ko soob. li ma wax nii du hadis alxuraan la. aussi. mais ñun jullit yàlla mi nga xamante ni moom moo sàkk yàlla fa mu nekk ci péeyam ba na mu ruqee na mu soree ni mu amee kantan am sañ-sañ ci dogalam ak bëgg dogal lu mu dogal di xool na mu sottee mu sotti ka ci anam wa mu gërëme te fa mu nekk ku mu fa woowul yegguloo fa xamuloo ko fa muy toog di décider di ay nar-naram ak ay namm-nammam pexem doomu aadama yeggu fa. Mhm. te gërëmul loolu. Mhm. kon tey di laaj lii yàlla dogal ci Seydina Limaamu am na wala amul ma damay jàpp ni ku dégg alxuraan war nga mën a xam ni lii yàlla layal na ko démb tey doog a ñëw du samay wax alxuraan a wax alxuraan moo ne yàlla nee na laa yusalu amma yafal wa hum yusaluun yàlla moo ni man yàlla mii di seen boroom bind leen sàkk leen. laa yusalu amma yafal kenn du ma laaj man yàlla li may def waaye yéen nit ak jinne wa hum yusaluuna yéen lanuy laaj bu ëllëgee li ngeen def nu ngeen ko defek ni ngeen ko tëdde kon ma tënk la rek ci gàttal rek ni la lii dogalub yàlla la moo xamante ni mooy borom kàntan bii def te bu defee kenn du ko laaj lu tax li nga def li nga def foo ko teg charte yi nga xamante ni nag yëpp war na daje ci ab yonent woote yonent daje na ci Seydina Limaamu la iddiyaawu nubuwa izaaru xawaarix aada ajjul an anil xiyaami biha yonent dafay woote mhm. pour ñu mën a wax ni kii yonent la yonent dafay def ay xar baax ajjul bashar anil xiyaami biha mhm. bu yonent defee xar baax ku dul moom li yonent def ci xar baax doo ko man ñett yooyu yëpp nag tey jii dama lay wax ni méngoo na ci Seydina Limaamu bàyyi laay alayhi salaam woote na wooteem boobu mu woote woon moo waral tey jii ñuy fete bisu wooteem kon bu dee dañ ni charte yi bokk na ci yonent day woote Seydina Limaamu woote na mhm. taxaw na fii ci benn ji bisu dimanche laxas laxasu laxo saayam ni maasaral jinni wal insi inni rasulullahi ilaykum woote na iddiyaawul wuduwa iddiyaawul daawa nubuwa iddiyaawul nubuwa mhm. woote na wooteem te yonent dafa bokk ci sart yi day woote kon limaam woote na bi mu wootee ba pare nag limaamu lay dëgër dëggër ndëgëraayam pour wax ni wooteem bi dëgg la def na ay ay ay xar baax def na ko moom mais ba la ñu ñu ci xar baax yi sidna dañuy wax ni ndax moom yónnantam gi beneen yónnant bu ñëw la ginnaaw yónnant bi alayhi salaatu wasalaam mais damay dégg ngeen di waxtaan. ne ma demo ma ma ma ma dem. moo dellusiwaat mais ñaar yooyu pour pour mu leer ndax moom euh, dafa ñëw beneen wala euh, pour mu leer. waaw dama la ci dama la ci leeral lenn lenn rek lu gàtt. wax naa la ni yonent la yonent day woote woote na ci charte yi. waaw yonent day def xar baax bàyyi lay def na xar baax. xar baax yi Seydina Limaamu def ci àdduna ku dul moom ci mindeef musoo ko def. mais xar baax te lott lott nga def mais xar baax wëliyu euh, day def day def day def karaama nit mën na nekk wëliyu tamit parce que wëliyu tamit dafay def karaama euh, yonentu dafay def mujiza boole karaama ak mujiza yëpp mooy xar baax yëpp wëliyu da koy def mais mais yonentu nag mooy moo ciy boole mujiza li mais Seydina Limaam waaw ci ci ci xar baaxam yi. waaw ñett yonent dafay def xar baax. waaw. wàllu yi dina def xar baax. seytaane dina def xar baax bu wàllu yu defee xar baax yemul ak yonent bu def xar baax loolu kiraama la bu seytaane defee xar baax loolu ngibar la bu hmm. yonent defee xar baax loolu muxjisa la muxjisa la masalan dama lay jox benn exemple hmm. tey bu ñu jékki-jékki woon gis benn waay buy dox ci géej gi ñu ni kii di dox ci géej gi kan la ñu ni kii kat ñëpp nangul nan nangul nan ka ak wilaayam dañuy xam ni kii def lii di dox ci géej gi wàllu yu la wàllu yu mën na def xar baax bu ni tol yaa ngi dégg mhm. bu fekkee dañ ni kii kàccoor la boo xamante ni gëmul dara ay nangam ak sàngam rek la gëm dafa lëndëm këris seytaane la bu defee xar baax loolu mu def xar baax bu leen ko tuddee xar baax du xar baax loolu njibar la mais yonent bu defee xar baax loolu muxjisa la muxjisa la ma bëgg la wax nag différence bi différencier mhm. wàllu yi bu def xar baax ak yonent bu def xar baax yonent na def xar baax wàllu yi dina def xar baax waaye wàllu yi bii def xar baax ni patt pattiral def xar baaxam yemul ak yonent bi def xar baax li leen différencier mooy yàllaa ma yónni ci yéen Baay Laay ba mu ne man la maay ndawal yàlla ci yéen ini rasulullahi ilaykum def xar baax kon mujiza la yàlla nag wàllu bi def xar baax te sañul wax ne yàlla moom ma yoon mais yan mujiza nga ñu mën leer yoo xam ne seen alimaamu def na ko fii ci réew mi ay mag fekkee mujiza parce que yonent yi daan def mujiza seen i mbooloo dañ la def xar baax xar baax yi mu def ci réew mi wax ñu ko ban moo ci gën a siiw géej géej gi ranul ma dëkk géej gi ranul ma dëkk moo ci gën a siiw mais géej gi ba muy rand ñan ñoo ko fekkee. ma ñëw dafa am ay seede mag ñi ko fekk seeni sët yaa ngi dund ay sëtu Cerno Caar coom ñi ngi dund ñoom Adama coom et cetera seen maam ñoom ñi ngi dund. fekke nañ ko. fekke nañu ko bàyyi laay bi muy def bi muy bi muy randal géej fekke nan ko loolu moom Pape ak loolu loolu seen gaa yi waxatuñu ko sax yof sax xam nañu ko mais dama a bëgg a wax ni bàyyi laay muxjisa yi mu def ndeem randal géej la. yoof ba ñu koy yóbbu pour di ko randalloo ji géej bu ñu xamoon ni limaamu bu randalee géej moom mooy doon la kay koy bàkke bépp suñu yoonu tey kon duñ ko ko sant de dañu foogoon ni lott na ci randal géej ah, ah biñ koy biñ koy randaloo géej gi dañ ko sëkkatal mais dañ ko sëkkatal yow da nga wax ni yàllaa la yónni ci ñun ñëwal wax ci géej gii la lekk nuy kër géej gaa ngi lekk nuy kër bàyyi lay ni bërit jog ànd ak mag ñi ñoom dañu foogoon ni gàcce ka cey dal waaye ba ñu demee ba bàyyi laay rëndal géej muy li ñu koy bàkke ba na gëni bu ñu ko xamoon duñu ko def ma fàtte la histoire papan mhm. bu fekkoon ni ba nuy xarloo yonent bi weer muy xar weer wi ñaar ci loxoom mhm. bu mag xamoon ni bu xaree weer wi ñaar ci loxoom bu ba na gëni histoire da koy retenir duñu ko ko sant que dañ xalaatoon ni lotta na pour def ko bàyyi laay rëndal na géej loolu kenn werentew ko ba mu tegoon rëddam it fa la géej yem xataa yow mi na ba fii may waxee ak yow géej randatu ko weesu ko ba pare benn ñaar mhm. limaamu bi mu nekkee gune tey rek waxtaane naa ko mhm. bu musaana dem di gëti mhm. jamonoy gëtëm bu limaamu demee bi dugg biir géej bu jàppewu jën benn mool bu fekk jamono bu nekk ci jamono boobu du xam jënu jën wii limaamu jàpp nu ma tudd te ñoom ñëpp ñuy demandoo géej bés bu jot bàyyi laay téer ak jën wu ñu xamul limaamu daana waaxu ba géej mu jël ñaari tànkam yii dugal ko ci ndox mi waññeeku bu ko defee vague bu ñëw daal di frotter ànd ak jën yi di ñëw te sànniwul mbaal deful dara. fii ci yof fii ci yof moom limaamu limaamu fekkul néew mu tëdd mu ni ko ëf mu jox bu ko soobee mu ni ko ëf mu ni këlëb tëdd. limaamu fekkuwul koo xamante ni xamul alif ba siin mu tekk loxoom muy tari waxtu wu ko dóoree mu fàtte lu mu xamoon loo bari xam-xam xam-xam xam-xam boo jàkkaarloog Seydina Limaamul nekkoon sax xam-xam daj bu ko soobee bu la dóoree nga wax Faatiha ba Baqara ba Naas bu ko soobee bu la dóoraatee ci bopp nga mel ni du yaa tari woon léegi mais oustaz Pabal loolu man kéemaan kéemtaan la yonent bi lu mu deful ci loxoom ci ay kéemtaan amul sallallahu alayhi wa sallam du dëgg. Mhm. daana def nii ndox di ci sotteeku. waaw ku mu musa ay yonent bi loxoom yu tedd yooyu nga jug doxi say loxo. wallaahi. Mhm. bàyyi laay nu feebar metti metti metti metti metti metti metti tar ci yow bu la limaamul mahdi muntasar tegee loxoom yu tedd yooyu nga daal di jug ni bërit dem joxi sa soxla. mais ci mucjisa yi ba ban yan nga ci gën a jàpp yu la yéem. bari na bari na du benn du ñaar du ñett fii limaamu julli na korite ñu ni limaamu dafa julli korite te julli koriteem gii day weer feeñu ca mhm. julli na te weer feeñul mu ne ah ñu ni waaw ñu dem ba ci jullikaay mhm. mu ni lu àdduna wax ñu ni ka nee na da nga julli ko da julli korite te weer feeñul mu ni ah mu ni waaw mu ni bërit daal di sigg sëgg sëggam siggi joxañ baaraamam ñu ni saraax mag ñi di séenu gis weer ni fang ci seen gannaaw ba mu neex leen weer wi wat laqat limaamu leen su ma waxoon neen man limaamu waa àdduna wax dëgg yàlla dina jël sama sama neen googu soppalik ko dëgg jël dëggu waa àdduna yooyu soppali ko neen ba ilaa yawmi diin kan moo ko def ginnaaw Muhammad génnewaat weer xar ko wala wane weer bëccëgu dara kàmm ku nekk di ko gis Seydina Limaamul Mahdiyul Muntasar def na ko. fii ci fii ci Yoff bu musaana dox muy taw ndox du ko laal boo doxee ji jiitleeg limaamu doo seen takkandeera bu tegee tànkam ci suuf bu ko teggee doo gis jeexital bi te bu ko tegee ci doj boo ñëwee fekk ka fa ku dul yonent defu ko kenn defu ko ci réew mi def ko ci bitim réew ku dul Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam mais loolu rasulaay da ka daan def euh, mashihu fi ah. shaari allam d'accord moo tax xam nga lu tax pour wan la ni moom la démb moom la tey ak taarix yooyu <laughs> du nafsahu loolu la arab wax l'histoire mooy répété waat comme ça du dëgg Seydina Limaamul Mahdiul sar loolu la def dafa wax ni lu yonent bi doon def démb dinaa ko def tey mais est-ce que du aal te tamit wax dëgg yàlla nga mën xam nga tamit euh, mën na nekk aal mën aal bi daan digal mag mag ñi jékki-jékki rek ne mais ne yonentu parce que rasulaay dem na moo est que du aal wala yi dikkal wëllu yu yi yow xam nga yi wëllu yu yi yenn saa yi aal dikkal leen est-ce du woon aal bi daan dikkal mag ñi rek du du jàppoo ni aal la amul génn góor gu génn taxaw daani anal xaq waaw waxu ko waaw amul ku taxaw al jàpp ko mu ni kafartu bi diinillaahi wal kufru waajibun alayya wa indal muslimina haram waaw naa diine yàlla kaka waxoon al jàpp ko dañu ko rey waliyu la waliyu la Cheikh Tidiane dafa ni su ma fi fekkoon kenn du ko rey ndax yéen comprendre dimension ba mu waxee d'accord na seen Cheikh Sidiane Chérif suñu yaa ci seen yaakaar di suñu yaakaar tëdd ca fees borom tëraay bu rafet boobu mais pur wax la ni mag ñi daan nañ toll ci àll boobu ñu tudde al wajdu jam ubbi mooy al mawajid waaw seen àll noonu la tuddoon Cheikh Tidiane pour wax la ni li nga wax ni effectivement wàllu yi daan nañ wax ci àll dem na banni fa isa sami'tum minni xawlan fa zinnuhu bi misaani shar'i waaw fa in waafaqa fa xuzuhu mhm. wa in wa in xaalafa fatru mhm. bu ma waxee wax ju ëpp natt leen ko ci balaasu sharia bu méngoo sariya leen bu ko méngoowul bàyyi leen loolu mag ñi daan nan waxante pap waaw aal ci noonu mais limaamu li mu wax du aal ah du aal du ba jàppoon mag ñi wàllu yi la aal daan jàppe ñuy waxe noonu mii kii yonent la yàlla ko yónni ci yónni dëgg bàyyi laay da yonent bi moo ni démb jomba naa di def ci sama bàmmeel ñaari fan bu ma tëddee sama bàmmeel ñaari fan dinaa jug su ma jugaatee fa may teg sama tànk xam-xamu doomu aadama xamu bàyyi lay ñëw ci mujjug jamono waxul ni ca ña doon def aal yooyu laa bokk de dafa ni inna allaha qad jaala ruuhu muhammadin fi jismi yàlla jël ruuhu muhammad solo ko ci sama biir yaram limaamu layal ko mu ni man la démb man la tey ah kon dani démb moom la démb man la tey dajeek ay mag ñoo xamante ni seenu may dafa yaatu woon tafsir njëgëgëy mu xaddamu Seydi El Hadji Malick la woon tey ci wakaam ci kër libaas sëy maa ngi koy nuyu de passage sama xarit boobu yendoo ak teraanga ak ñun mhm. yal na yàlla barkeel ko tey nuyoo nañ nuyoo nañ ak sëtam surtout tafsir Njaga Gay mhm. dan daan wax lii njagaama ci raw mhm. keroog ba mu jàkkaarloog Seydina Limaamu bàyyi laay def ka woo ba mu ñëw Limaamu laay yónni ko yónni tafsir Njaga ni kan tafsir Njaga mu ne amu ah, ni ka jox ma nangam jottali ma nangam mu ñëw jëli la ko Limaamu jot yónni woon ñëw toog ni pat jox ko Limaamu bàyyi ni ko mais njaga mu ne ah mu ne ko ani li ma la yónni woon mu ne ko déet bi nga may yónni melokaan yii ma fi fekk bi may dem bàyyiwuma ko fi woon mu ne ko waaye déedéet waaye jottali ma sama yóndent mu ñëw indi limaamu li mu ko joxoon tekk ci loxo limaamu bàyyi laay ni ko lu tax yoon wi yoon wu jëkk wi joxoo ma yónent bi yoon wu mujj bi nga jox ma yónent bi mu ne ko bi nga ma yónnee bi ma ñëwee ku weex tàll laa fi fekk bi ma dellu see jëmm ju ñuul kukk laa fi fekk bay laay ni ko bu dakay man la démb man la démb man a tey tafsir njaga mu ne ah mu ni ka man la yàlla yónni ci dëgg maa ngi réere borom xam-xami jamono yi ca boppi laxdar yu fan naan xaatimu nabi ba imaamul mursalin foofu leen laa leen làkkoo damay gan gu ñu séenoo buntu kër ma jaare pot koo koy Seydina Limaamu El Hadj Papa ngi noonu mbokk yi maam Ablaye Kébé yaakaar naa xaar gi ko doon xaar ci xam-xamam waaye itam euh, yaakaar naa mboolem ëhlu laa yéen tey am na lu ñu yëg ci Seydina Limaamu Laahi mooy ñu ci biir réew mi waaye itam nekk bitim réew nit nag pour nga bëgg ko faawu nga xam ko ba noppi nit doo koy dégg nii rek faaw nga xam ko loolu loolay waral xam nga yu ruqe yooyu <laughs> am na yeneen nag faaw mat naa koy indi bu baax a baax a baax mais léegi moom yonentu la dañu waxoon tamit imaam al mahdi <laughs> yooyu tamit xam nga yooyu tamit dafa doy waar tamit mooy mooy rasulullah te jamono yi xam nga mahdi yi dafa bari ki àdduna bi fi mu toll nii. Mhm. nga Amérique ñii nga Japon. Mhm. te ñoom nee na ñooy imaamu mahdi. ñii nga ci yeneen réew yi ba fii ci Tamba ginnaaw Tamba du dëkk mhm. am na ko fa woote mooy mooy mahdi. fii ci réew mi am na ñoo xam nee nañ moom la. léegi Seydina Limaamu Laay al mahdi googu nu ko dàkkantale al muntazar mahdi googu it bëgg naa nga <laughs> leeralal na ko lay waxtaan. jërëjëf Pape yàlla na yàlla fay la sama waay. amiin yaa rabbal aalamiin. waaw dafa ni mahdi yu la am ay mahdi yu fi feeñ àdduna boo fi demee du jeex ci mahdi yi ni feeñ nan ci jamono du jeex du jeex de ba wax nga ko léegi yaa ni bërki démb rek ci suñum réew am na ku ni fi bëxeet ni moom mahdi yu la mhm. ani tey mooy ki ko mujjee woote ani dañ ko dañ ko jàpp ci loxo waaw limaamu tubaab yi jàppoon nañ ko yóbbu ko bato yóbbu ko gore nin ko jàppe nan jàppe woon limaamu moom mi ñu jàppe na wane xar baax yi limaamu ware woon ci gore ba tubaab yi daan ni kii bu leen ko génnewul gore tàkk gore ah, jeex ah, mais biñ ko jàppee léegi yàggagul yàggagul ñu déglu ndax dina fa wane xar baax yi bàyyi lay wane woon bàyyi la yan xar baax la wane. balaa may wane bàyyi laay xar baax yi mu wane ndax maadu yi ngeen fi ja jàng boobu moom mii ngeen wax yusuru fii maxribil ak saa ala saahilil baxri ndax moom feeñ na ci tefesu géej ci ci ci jamono ci ci. daw ñun ñun waxuñu ko moom moo ko wax. moom waaw moom moom mi ko wax. waaw <laughs> waaw moom mi ko wax <laughs> ndax feeñ na ci tefesu géej. déedéet. ndax feeñ na ci saw bu saw bu sori ba. déedéet. ndax feeñ na ca montagne ya. mais ndax Mahdi dañu waxoon ni ci saw bu sore ca saw bu ba lay feeñ ca montagne lay feeñ ca tefesu géej ga lay feeñ buy woote dina woote ci 40 ans Seydina Limaamu ci 40 ans la woote laajal waa ji bi mu woote ci ñaatat lam ba pare ndax moom Mahdi bii gaa yi téye bërki dem ndax am na Isa ndax dañu waxoon ni Mahdi day am Isa Mahdi buy la Mahdiyan ilaa man Isa Mahdi du ñëw mukk te àndul ak Isa imaamu doon doomam wala mu doon surga bu mu yar ci këram heureusement que ñun di mu ñu am Isa mi taawam mooy taawam di doomam du sax surga bu mu yar. mais ndax Baye Laye ndax Mahdi boobu waxoon na ci Isa avant muy ñëw. mais wax na ci Isa pour dëggal sax li dafa ni woon wax naa ko tey jii ca Wakaam. Mhm. waxoon na ni sama woote bii bu matul. ñu ne ah mu ne ngone si moo koy mottali. boobu ñaata at la am. juróom-ñeenti at mu moom daan ni sama woote bii may woote man li ma am su matul mu ne ah mu ne Isaax dina mottali sama woote bi dama ne waa Paban d'accord. kon bàyyi laay du mu wax diw maa nangu jubul nanguwunu ko lan moo tee yàlla bi bàyyi laay joxe déclaration bi ni sama woote bii bu matul isaa mii dina ko mottali lu tee yàlla rey isaa balaa bàyyi laay di génn àdduna te boobu isaa euh, euh, neuf am te boobu isaa neuf ans la am lu tax yàlla téye fi isaa ba mu am 33 ans ya mu yéege woon mu doog a wut bàyyi laay ci xilaafam lu tax téere yëpp nga jàng ka ni ma ko jàngee waxoon ni Isaa bu ñëwee dina wutu limaamu Mahdiyu 40 ans lu tax yàlla rayul Isaa à l'âge de 36 ans wala 37 ans mu bàyyi ba 40 ans yéen waxoon ni ci lay wutu limaamu Mahdiyu mu rey mu wutu ko ca. lu tax ñu ni Isaa bu Mahdiyu génnee àdduna Isaa koy jullee lu tax kaneen doxul woon ci digganteeg lim néew bi jullee limaamu ku dul Isaa lan moo tax yonent toog ñetti fan kenn robu ko. Seydina Limaamul Mahdi Muntasar génn àdduna ñetti fan kenn robu ko xalifaam Ababacar bi yonent bi di génn àdduna fekku ko fi dafa aye ji ci céetam Isaa bi Mahdi di génn àdduna fekku ko fi ma nga ca Kajoor mu ñëw troisième jour ci rob Seydina Limaamul Mahdi Muntasar moo ko jullee moo ko jullee moom Isaa ba pare toog fi 40 ans doxal li mu doxal doog a dem waa dama ni lan moo tax yàlla reyul Isa balaa muy am 33 ans. mais avant loolu ndax dañu waxoon ni ndax dañu waxoon ni Isa moomu di wutu Baay Laay. Mhm. di wutu di wutu Mahdi boog laa bëgg wax. Mhm. ndax boobu dañu waxoon ni. 40 ans la koy wutu ndax wax nañu ko ndax waxoon nañu ni bi mu koy wut 3 33 ans lay am. ba muy yëg ñaata la woon. 33 ans. démb ba muy yéeg ñaata la moom. 33 ans bi muy wuutum yonent Yàlla Isaa. yonent Yàlla Isaa moom la. bi muy kay wuutoo rafiuka. bi waaw 33 ans la am. 33 ans la am bi muy wuutu Seydina Limaamu mi ngi ko wuutu ci à l'âge de 33 ans moom moom moom Seydina di def la Isaa mëne daan def. yonent Yàlla Isaa mi daraan dekkal ku dee. Isaa mii dekkal na ku dee li may wax àdduna bépp nga koy dégg. mi ci Cambérène. bii ci Cambérène. comme dekkal. du jeex. du jeex mhm. ci ñi mu dekkal fii liggéey na jumaay yoof gii mhm. génn góor daanu ca ba ñuy defar jumaa ji doon néew bu sotti ñu yóbbul ko Seyna Issa mhm. mu këpp këpp mu jox dox na ci àll fekk kaang kaang boroom xam-xam bu dee bopp bu ah, borom dee maanaam bopp rek la fa fekk. bopp kese. waaw bopp dee borom dee ba mu wow koŋ. waaw bopp kese. mu waaw mu jëlu yatam ngeeram def nii daan ni ah sama turandoo Issa de fu mu musaan fekk lu mel nii dana wax ak moom jël ko ni ko jàmm yàlla bi la indi fii mu ni bëre tontu ko damaa nekkoon ci àll bi ñii ni feebaru xel ak jàppoon ñii la neen jàppoon xiif ak mar jàpp ma ba ma dee ci biir àll mu ni war añ wan ko ginnaaw lii ci réew mii la ko def moom sant xam nañu mu àndal boobu Seydina Issa waaw moom def na ko ñoom maam Seydi te Seydina Issa bi muy wuutu euh, Mame Baye Laye mi ngi am 33 mais ndax waxoon nañu ni dana toog 40 ans avant avant avant mu koy wutu waaw loolu addis a yent benn woon dina fi toog 40 ans buy wutu ginnaaw Mahdi ginnaaw Mouhamed buy wutu Mahdi mi ngi noonu maam Abdoulaye Kébé mbokk yi ñu ngi fii ci télévision Futurs Médias seen tele di ñaan réew mi yàlla def fi jàmm réew mi yàlla dolli fi jàmm tey jii ñi yendu fii ci yoof dangay gis ni lislaam rek moo am ndam ndax lu weex rek ngay gis kàddu ga benn la mooy kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi mais maam laay nag tey nag dama bëgg nag nga waxtaanal ñu nag ci Seydina Limaamu dañu dañu bëgg daal nga waxtaanal ñu Seydina Limaamu kan mooy Seydina Limaamu Laay askanam Seydina Limaamu ci zahir ci ndawam Seydina Limaamu la njëkk yàlla di ko yónni jaar jaaram moom Seydina Limaamu première wooteem ba ak ñi ko dar nga indil ñu ci ñi lenn lenn ci mag ña tey tey daal bëgg nañu nga bëggal ñu ci Seydina Limaamu Laahi al ndax ñun mbégte rek la ñu yendoo tey mhm. ndax kii feeñ ci sawu jant bii mhm. pap mhm. nga xamante ni moo wax waxam jurey jooju pap baa yëgal baa yëg nga ni ñun waxu na ni bàyyi laay yenent la moo ko waxal boppam moo ni man yàllaa ma yónni ci dëkk dox doxalinam woote wooteem sampa filim fi samp ci diine ju bu àdduna weddee limaamut lépp lu bàyyi laay jàngale àdduna xemmem nañu ko ni muy def di sikkar doog julli ku ko bañ kenn xewu fi woon ah moo ko fi indi moo ko fi indi bi limaamul maadul muntasar di tere cigarette kenn terewul cigarette bàyyi laay jëkk tere cigarette ci àdduna mm-hmm. kan moo ko xemmemul loolu tey mm-hmm. yor néew di tudd yàlla tey léegi li pap ku nekk nga ci roy mhm. laayeen mhm. Seydina Limaamul Mahdiyul Muntasar moo ko fi indi mhm. jël doom ju ndaw nga koy xarfal ci ngoneem tey ku nekk yaa ngi koy def bàyyi laay moo ko fi indi pap tey jii jumaa jàkk boo gis utal nañ fa palaasu jigéen démb bërki démb réew mi nanguwunu ko woon ñi fi nekk nanguwunu ko woon bàyyi laay ka fi samp tey ñëpp roy nañ ko ci ban jàkk nga gis te utal nu ko palaasu jigéen jigéen ñaa ngi am seen place góor ñi di am seen place limaamul mahdiul muntasar moo ko indi ci moo moo ko indi fii samp ko fi tey ku ko royul ci col gu weex bu nee col gu weex xel yépp dem ci kër Seydina Limaamu bàyyi laa yi ko fi indi même bu ko àdduna bañalee wooteem bi lépp lu fi jàngale ci jàngal àdduna xem xemmem nañ ko ba koy xëccoog waa këram mhm. waaw wala déet mhm. ci yi ma la wax yépp mhm. ma la wax nii xam nga ni lii limaamul mahdiul muntasar moo ko fi instauré kon kay njàngalam njàngalin mi xemme mi rafet na mhm. <laughs> lisaanul xaal asdaqu min lisaanil maxaal mhm. bay lay loo ko weddi weddi weddi boo geesoo njàngaleem boo gisee ni mu doxale nga daal di kay naw daal di bëgg a bokk ci kuréel mhm. loolu la Sidina Limaamul Mahdi def li gune di def balaa ngay feeñu yonent di wane ay xar baax Seydina Limaamu da ko wane bay lay du yonent nekk gune gu ndaw bu ko baayam ne demal nga utali ma am matt bu ma jaaroo wala bu ñu toggee njëlu kër gi bu ñëwee indi ay loxoy keseem limaamu lan moo tax bu ma la yónnee boo ñëwee li ma la yónni doo ko indi ani taxan ma ani matt ma mu ni ka sama ba waajur sama baay mu ne ah mu ni ka man manumaa tiim garab gu may sujjóot di kat gor te garab gu ma tiim mu sujjóotal boobu ci ndaw ndaw la boobu ci ndawam la garab gu ma soj nga sujjóotal ci ndawam tey la làmp yi am projecteur amul woon ci ci ci jamono jamonoy Seydina Limaamu mhm. ñun lu mu gàtt gàtt fekk na fi làmp pétrole mhm. te am na ñu fi fekkul làmp pétrole waaw wala déet bàyyi laay bu mu sa jot yoof dañu koy njëkkante ku nekk di jël gone gi di ko dugal ci sa buntu néeg génnewaat ndax buñ ko ci nee saraax dugg ci néeg bi leer gaa cay fanaan ba bët set ci gune te wooteegul de mhm. limaamu amulum ndaw doxu ko feeñu korop moo nekkoon fa mu daan wét di wéetal yàlla alifa nus wala ibadati wal xalwata tifla wa hakaza nu jabaaw bàyyi lay mus di wéet di jaamu boroomam rek la daan def wéet rek jaamu boroomam doo ko fekk mukk mu dox ba sol daal fu mu fekk pepp ci suuf daal di koy for mhm. nekk nit ku modeste alaaj pap ba jékki-jékki mu xëy ni yàllaa ma yónni ci nit ak jinne taxaw fii nag sampa sampam pap léeg-léeg dama bëgg ñu jàpp xel ni mbir yi nekkul ci ay test yu bari ay texte yu bari ay nassu ay nusus non parfois du ñu tardel xam nga lu tax texte yu bari du ñu tardel mhm. pap xam nga texte lu tax texte yu bari du ñu tardel <laughs> waaw mais attends Abu Talib mhm. alxuraan wàccul ci kanamam mhm. dafa tax mu Abu Talib alxuraan wàcc na ci kanam. waaw waaw wala dëgg la alxuraan ay taxi kese ay ay kese la. waaw boo demee ci àdduna bi ñaati bibliothèque nga fekk ay alxuraan ci seen biir ci continent yi fi am yépp bés bu jot nga gis ku jàng alxuraan est-ce que tax nañu gëm. déedéet. yonent yàlla Moussa nangu nga ne yonent la. alayhi salaatu waaw. benn. benn nangu nga ne yonent la. benn. Mhm. ñaar nangu nga ne ci ulil azmi la bokk. waaw fas biir ka maa sabara mhm. Mhm. ulil azmi la. bokk. waaw. am ah, musa Moussa waaw. Mhm. ñett nangu nga ni yonent bu am téere la. waaw. am na téere tawret. tawret. Mhm. ñeent nangu nga ni moom Moussa rek nee na yàlla yónnil Aaroona mii yàlla yónni yonent yàlla Aaroona. waaw. yàlla Aaroona bii sama frère bii def ko yonent rek yàlla def ko yonent mhm. nangul nga ko Moussa. waaw nangu nga ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu jëlee julli gi Moussa moo ko doon wax demal sa borom wàññil la. waaw wala déet. dëgg la. mais d' accord nga ni yàlla boo booyee nakaak xadir mu koy jàngal. moom Moussa waaw moom Moussa. te xadir mi koy jàngal même ak yeneen taam wóorul wa fii wilaayatihi la Seydi Alaaji Maali wax. aw kaw nihi aw kaw nihi. malikan malikan. xul innahu saalihun bu ko defee rek aw ma nga noonu. waaw mais bu dee moom mi am mi yonent bi musaa mi téere yi wàcc ci moom mhm. moom la xadir mi nga xamante ni ak werentam sax leeru lañ ci werente te yorul téere di ka jàngal kon texte ay texte ay nas ay nusuus yu bari lan lay jëriñ pap du caagi ni lépp lu waay di gëm rek da nga koy gëm par les textes bu fekkoon loolu kon ñu jàng alxuraan ñëpp dal di nangul Muhammad te genn wàll gépp kenn nangul ko ci allahu akbar mhm. léegi jubluwaay bi ci lii nga du doon wax nii nii ci yun ci àlla muuseek yooyu yëpp jubluwaay bi. waaw jubluwaay bi du dara mooy Pape nanu nangu ni nañu nangu ni nañu nangu ni réew mi d'accord ci ak man aussi que ni bàyyi mii lii muy woote bu dul woon dëgg ba tey woote gi fay na kon du yegg fii mu yegg kon woote bi. Mhm. du yegg fii mu yegg de. Mhm. bi yàlla bindee yonent yi ba gën à part Moussa mi dooroon yatam ci géej idrib bi asaakal bax baxara fan fajarat kaneen randalatu fi géej ku dul am kon bàyyi lay jëfi yonent yi rek mhm. jër fi yonent yi rek la fi fekk di ko defaat de li fi yonent defoon rek de fekku fi li fi wàllu yi doon def mu koy def li fi yonent yi doon def lay def lu ni mel wala lu karaw yonent yàlla Moussa moo xaroon géej gi bàyyi laay randal géej gi ci yàlla Moussa bi muy xar géej gi yatam la dóor bàyyi laay ba muy randal géej gi dafa rëdd rëddam ni sama ni géej toppal sama baaraam mu topp ko géej gi arrière di arrière ba keroog àdduna di tukki dootoo ko dégg ba keroog àdduna dootu tukki fii ñu ko denc fii ñu ko ci géej gi la bokkoon ci la foofu boo fa dooxee xam ne ci beeñ ngay dox ne woon naa la plage bu plate la amul benn dind saabul bu fa nekk du géej gu jigéen boo xamante ni du yëngatu géej gu góor la buy bipp guddi ak bëccëg waaye fa la bàyyi borom taax bi de. non fi ñu ko denc noonu ci géej gi la bokk la Pape damay la boo doxee foofu xam ni la ngay dox loolu lépp beeñ la. waaw beeñ la boo koy dox gis ni suuf si di si kare foofu rek la am waxtu wu la neex ak loo mën a sol boo ñëwee ci pays yu bàyyi laay aajowul ngay lal sànni rek sa yére du froissé du tilim du taq kii jub ak boromam. ginnaaw ba Moussa randalee géej dàqi géej mu randatu kaneen waxatul géej xaral géej mu géej xar kaneen waxatul géej randatul mu randatu ku dul limaam te Pape bali de suñu dund dootoo dégg ku randal géej kon yonent bu defee muxjisa day lott ci ña fa nekk ñu def la mu def kaneen mënatu ko ginnaaw limaam bàyyil boobu ma jox la beneen aywa limaamu rek moo fi def muxjisa doon nit def muxjisa ruu nekk ci moom mu def muxjisa bàyyi laay rek ba ci yonent yi nga fi jàng ma jàng ka keneen jàng ka mhm. ku fi gis yonent bu fi def muxjiza ginnaaw bi mu génnee àdduna wax ma ko ku dul limaamu laay di dund di def muxjiza dee def muxjiza dee def muxjiza mooy ah, tey nga dégg pire ginnaaw ginnaaw dundam laay lu ma wax layal ko eh. dama ni ginnaaw dundam nga wax laj <laughs> Pape dama ni. Mhm. dama fi jaar yëpp ku ñu def ku ne def ay xar baax ku ne def mujisa ñoom ñëpp ñuy def mujisa bi ñuy dund la yonent bi ñu Seydunaa Muhammad ba muy xar weer bi muy dund la bi muy dund la de. waaw. Hmm? waaw. d'accord nga. Mhm. ba mu naan suuf. lekkal tànku fas wi sara suraaxata waroon. suraaxata ibnu Malik. boobu ba muy dund la. al-Jaxshami. Mhm. Mhm. fa lillahi issaaxat. jawaaru suraaxati. jawaaru suraaxati. xawaa'imuhu. xawaa'imuhu. ba'da rujuu'i yaquulu. yaa Aba. Aba Hakamin. Hakamin. wallaahi law kunta shaahidan. amaama jawaadi nga xam ni wàllu juuju juhuulu yaa aba hakam wallahi dafa wadde wallahi law kunta shahidan amama jawaadi nga xam ni wallu juuju juhulu laa ilaaha illallaah suraaxata ba muy ñëw ca am ya bu Seydi El Hadji Malick radiyallaahu taala ja eh, gis nga nag téeréem yooyu jóge bilaadu arab taxul nga firi ko déedéet déedéet déedéet maa jaaroon Makk ak aw ak Keer ak ko taxul nga firi ko billaahi wallaahi yaa aba hakamin wallaahi wallaahi law kunta shaahidan amaama jawaadi Maodo nee na nga xam ni wallaahi wala juuju juhóol suraaxata dafa ñëw ñu koy teeru ndax dafa noonu bopp yonent bi lay indi mu ñëw indi nel bu ñu wat. te dafa demoon dabi rasulullah pour demoon dabi rasulullah pour rey ko pour rey ko. rasulullah geesu yem ci moom ànd ak Ababacar ni suuf eh mu ne amu ni ka lekkal ma tànk fas wi mu lekk ko. boo ma bàyyee de dafa guddi dinaa wàññeeku de li nga woote muy dëgg yonent bi bàyyi ko mu toppaat ko mu ni suuf lekk ko ba ci oom yi mu lekk ko. mu dem wàññeeku wax daal ni côté bi ma jaarul woon moo baax xaaral ma jaar beneen côté ñëw bi ni suuf lekk ko mu ni que nag taxawal ma tuub. lii moom du caaxam ñu wat ko ba mu set wecc màkka toog di ko xaar yaakaar ni bopp yonent bi lay indi abaa hakam yonent noonu la tuddoon mooy turam bu njëkk bi. mooy abaa jëhlin mooy abaa jëhlin yonent bi tudd abaa jëhlin mhm. mais tur njëkk woo mooy abaa hakam mhm. moo tax ba mu yegsee ñu naan moom la am du moom ñu ni kii nel la indi moom suraaxata mu ñëw di leen nettali mu ni yaa abaa hakam dafa waat ni wallahi law kunta shahidan amama jawaadi nga xam ni wallu juuju ju billahi maa ngi lay waatal ni boo nekkoon ci sama kanamu naaru góor woowu nga xamante ni billaahi nuur ci seen bàkkaar yeeg nooneel bi ngeen bañ yorent bi ak réer dong la man yéen a fi des waaye toppi naa ko de kii mooy Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku dul Muhammad ba mu ko defee bàyyi laay rek moo taxawaat ci àdduna ni suuf téyel ma tànku àll yàq jóg suuf téye tànkam ah ci Cambérène kuy kooku al yàq jóg saaba Seydina Limaamu la woon waaw bàyyi laay day waaraate mu ne limaamu sa waare gi metti na ay gaaral la ci man ay léexu la ci man mu mer jëli walisam gaalam daa di teg ci boppam ni ma ngay dem mag ñu dem wax ko limaamu ah al dafa gis boppam ci wax ji de nee na da ko doon léexu di ko gaaral nee na ma ngay dellu fa mu jóge woon ndax lii indi ko woon bàyyi laay toog fa mu toog daan ni soof mu ne ah mu ne ko téyel ma tànku àll yàq jóg daan ni mag ñi bu ñaari tànkam yooyu werante ngeen xam ni man limaamu yàlla yónniwu suuf si ni ko kirib téye tànkam Sénégal nañu bàyyi xel ci góor gi kan la te loolu am na ñu ko fekkee. waaye dama ni la fii da demal bu subaa nga jox sa antenne ku la neex ci mag ñi fi nekk ñu nettali la ko fii ci Cambérène suuf si ni ko kër mu fanaanee taxaw ba asamaan set bu guddi woon moo xalak Mouhamadou way na ko. bàyyi laay ko fa Moussa fekk teg mu dem waa ka Pape ndax mu ji lay fekk ko fa daa di kay teg loxo bàyyi ko mu suuf teggee ko ci moom mu wàcc yenam toog te xam ni kii moo yonent bi yàlla bi bu fi génnee ci kii kan lay jaayanteel ku toll ni kii. mais da nga waxoon sàkk di kéemaan bi mu defoon bi ko tubaab yi jàppee boobu tamit bëgg naa nga leeral non dinaa ci nga ma ci dugal foo xamante ni dama la wax ni te bëgguma daw question bi ñu ne ma Ablaye Pabane posé na question bu doy waar génn ne ko puisque dama ni mhm. li ku dul limaamu dib yonent yonent boo fi gis mu def kéemaan mi ngi ko def ci bi muy dund damay la bàyyi laay rek la ruwam dem àllaaxira muy def mujjiza waaw kay foofu ah ka duma ko bàyyi nag mu dem foofu laa jëm ak waaw waaw parce que dafa loolu dafa war a leer dafa war a leer koy leeral mais Pape laajal dakaar laajal Dakar kan mooy góor gi Mbay la nekk na imaamu ratib Dakar nekk xaadi bi 22 ans te moom ak Seydina Limaamu te moo mag Seydina Limaamu. déedéet góor gi Mbaye Sylla. mu njabootam ñu ngi fii ñu ngi fi kon li ma wax ba pare interroger nekk na xaadi bi. di àtte mhm. 22 ans. nekk imam ratib bi 22 ans. te moo mag bàyyi laay mu jébbalu ci Seydina Limaamu. xam nga nu ko bàyyi lu tax. mais lu waral loolu xam nga fu mu jaar ak Seydina Limaamu. déedéet keroog ba mu génnee àdduna. fii ci dakaar ñu yónnee Seydina Limaamu ci yoof yëgal que ni góor gi Mbaye Sylla génn na àdduna. fekk magi Dakar yëpp magi pénc mi yëpp toog ca wanag wa bàyyi laay neewu ni mbay si Sylla génn na àdduna rek mu ni bëreet jog dafa jël temps dafa jël temps dafa jël temps dafa jël temps ba xam ni li mu jël na largement ci temps li mu soxla woon mu ni bëreet daal di jog topp topp topp yoon bi jëm Dakar ñëw kër Mbaye Sylla nuyoo ñu fay ko mu ni saraax dugg ci biir wanag wi bàyyi laay wax jël fa xumboon boo déggee sëñ imaam Mouhamadou Sakhir Samari sëñ naan euh, maam Bay Babacar wax ju xumba ja niir wa dem na la mu donne woon ci sëñ alimam wax ja fa xumboon bàyyi laay taxaw mag ñi naan moom dañ kaa wax rek ni ko kii génn na àdduna dañ ko doon yégal rek ndax ni mu meloon ak moom ni mu jokk woon ak moom bàyyi laay ñëw romba mag ñu nuyoo ñu fay ko mu dugg ci biir mhm. taxaw ni mbay si la mu ni tekk mbay si la mu ni tekk mbay si la mu ni tekk ñetteel bi yoon la ko limaamu woo mu ni biskey daal di jóg xam nga lu tax bàyyi laay jël temps am doog a yegg si bu gaawtu woon ñëw woo ko benn yoon sax mu jog ñu ni boo moytuwul nokk gi moo fattoon waaye dafa jël temps ba ñu xam ni kii néew la dee na daram yëngootul ku ñëw xool xam ni ku ñëw xool ni kii pare na ma nga àllaaxira ruu gu dem ci sa borom booy ñëw du gaawe noonu woo ko benn yoon mu ni pat woote ñaari yoon mu ni pat woote ñetti yoon bay mbay si la ni bërët xam nga du ko bàyyi lay jëkk a wax mbay si la man na kan waaye la ca neex mooy tontoli mbay si la Dakar xam na ni génnoon na àdduna waa ruugu dem ba barsàq wuy ji sa borom boo gëmoon nit ci neen boo wàññeekoo di nga ni li ma jàppoon du dëgg du dara bi mu wàññeekoo jóge ci boromam la dëggal ni yàlla moo yónni Seydina Limaamu mooy sangub tey ak bu ëllëgee ca ba mu dekkee. non bi mu ne ko Mbaye Sylla man akan lu mu ko tontu. daf ko ne yow yaay limaam yaay gën di mbindeef bu yonent yi amee seen njiit yaay seen njiit xam nga lu ko bàyyi lay tontu bi mu ko taggalee way wóob bàyyi moo dumb indi na ko ci xaari ko xam nga lu ko Seydina Limaamu tontu. Hmm. ci ba mu ko waxee loolu daka ni Mbaye la mu ne ah mu ne ka man la yàlla yónni ak yàlla yónniwu ma googu wax adduna la yem waaye yemul ay yeggul àllaaxira werante wi fii la yem ci adduna waaye yeggul nanu bàyyi xel ci góor gi. mais ginnaaw ba mu randalee géej bu ca yemoon rek ni wàllu yi laa kon ñëpp gëm ko ndax kon def na lu wàllu yi deful kon bu ci tegee ni yàllaa ma yónni day ndawal yàlla. na loo xamante ni man sax jombal naa ko sama boroom sama doom sax jombal na ko boroom mooy di duural boroomam waxatuma laa ndëkk ponkal mu mel ni Seydina Limam jomba na di wax naka sadul noonu. damay la paap ginnaaw yonantu ginnaaw ak dundam. waaw ñu ko dencee ci biir suuf. def na def na beneen mu'jiza ban la. dama wax ni bàyyi laay fan génne àdduna nga paru ah kon génnewul àdduna fii coow nga paru la bokk ah. li ma wax et je pèse bien mes mots dama ni moo fi nekk yonent boo xamante ni ruu gi dem na barzak muy mhm. def muy def moo muy def mujj Mm-hmm. déglu ma mm-hmm. bi ñu jëlee néew bi bi ñu jëlee néew bi. Mm-hmm. di ko yóbbu fii ñu karop diggante Ngaparok fii ñu karop. yaa may dégg. fu fi limaamu romb ndoxu géej gi neex na loolu du kéema andi ki ka def du néew. du du saf xorom. du saf xorom lawet domb te ba muy saf xorom mi ngi tàmbalee ci kër gi mu génnee génne euh, àdduna ak fi ñu karop. diggante boobu kese la ndengeen yëgu ko tóngoor yëgu ko ndenaat yëgu ko neexaayu ndox mi waraar yëgu ko tóngoor yëgu ko nëngaan yëgu ko foofu rek la yem diggante bàyyi laay fi mu génne àdduna ak fi ñu ko diggante boobu la géej gi neex te boobu géej gi di neex boobu limaamu néew la dundatul kon moo fi nekk pël seul prophète bi def kéemaan ginnaaw bi mu génne àdduna amul benn yonent bu ko mës a def déglul sama sëriñ li wax moo di sax yéen nee na jéem a xar baaxi njiin ak duusi géej ñoo bokk xam nga lu mu ci wax lu mu ci teg mu ni doy na ciy wax géej ga neexoon ngir di jooy Seydina Limaamu la ilaha illallah jéem a lim xar baaxi njiin ak duusi géej ñoo bokk hmm. doy na ci wax géej ga neexoon ngir di jooy Seydina Limaamu déglul hmm. ñu ni Modou Sakhir bindal mu ni fan ya géej am ndox fan ya géej am ndox mu neex mooy fan ya ruuxuk maam li baas ruuxuk maam li baas mu ni nekkatul biir jëmmi bàyyi lay kon ba muy def mujisa néew mujisa bi néew la Modou Sakhir ka bind fan ya géej am ndox mu neex mooy fan ya ruuxuk maam li nekkatul biir jëmmi bàyyi laay kenn robul sëy naa li ma dégg mhm. waaye ñu ni ki Modou Saxiir wax nu fan la géej gi neexe neexaay bi fan la tolloog fu mu yem mu ni géej ga foofu neex tàmbalee kër maam libaas yem jàmmalaay ca kër ga mu génne àdduna yem jàmmalaay wax ji ma la doon waxee noonu. foofu la ndeexaayu ndox mi yemoon Pape dama gëj a gàmm. ca gàmmul nag dañuy gàmmul ah. déedéet dama sonn Pape reer aguma <laughs> Pape bay mën a jëwit. dégg nga li wax. géej ga foofu neex. tàmbalee kër maam libaas yem jàmmalaay. mu ni ñii di root ñi sangu ñi naan ñetti fan du nan sira ni ñi naan ca ndox ma ñetti fan ci géej ñetti fan ñii di ci root di ci sangu ñii di ci root di ci naan saxiir moom du saxiir nee na ñetti fan du siraam ñetti fan yu tegtaloo fan ya am ndox mu neex mooy fan ya ruuxu maam libaas nekkatul biir jëmmi bàyyi laay kenn robul say naa limaam ñu ne Maodo Saxir bindal mu ni géej ga foofu neex tàmbalee kër maam li baas yem jàmmalaay loolu ci kéemaane kaneen ku dul diggante nga poroog jàmmalaay sa géej neexul mais ginnaaw bi ñu ko dencee géej gi dellu na mu meloon dama géej gi dellu na mu meloon wax ma ban yonent fi génnaat àdduna def mujjizaat ci ginnaawam ku dul li maamu pap fii laa yem mi ngi noonu maam Ablaye Kébé téléspectateurs yi kenn kenn doyalul nee nañu Alassane ak Séni tey jii am na leneen yëg yëg boo xam ne am nañu ko maa ngi nuyu baax a baax imaam Mouhamadul Muxtaar laay ndokkeel ko nuyu Yafaati Thiaw laay nuyu imaam Mouhamed Lamine laay nuyu Cheikh Mbacke Ibou Séni laay ñun ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel mboolem njabootu Sidna Limaamu tey jii ñu ngi jàkkaarloog yow soxna Ayta laay lay Muxtaar Ibba Laay Alassane seeni ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax Bàcci lay ma ngi Italie waa Novara Laay nii fa ne maa ngi leen di nuyu. Cheikh Fall sama xarit. mairie maa ngi leen nuyu madame Fall maa ngi nuyu euh, soppay Seydina Limaamu yi nekk Amérique ñoom ñëpp maa ngi leen di ndokkeel bu baax a baax lay maxtaar mais mais doñ dool benn cinq minutes rek wala trois minutes man. mais mais lay maxtaar ah. li may wax mooy ñi ngi sant yàlla. bi nga xamante ni lay Laye mii gàcceelul. Baye Laye. gàcceelul. Mhm. Euh, sama xarit. di sama wóllare Baye dafa dugg ci plateau bi. Mhm. muy Babacar Bass professeur. mais professeur xam nga ñoom après ñun buñ paree. ñooy ñëw beneen plateau day am. Assane Seck moo koy diriger. muy ku bari xam-xam professeur sama xarit. waaye di ko tedd nag. Mhm. waaw di sama soppe lool. Mhm. mais Pape di ko gistu mag ñi. ku miinoon sama ruumu Pape mi ngi nii. est que jël na lu bare bare bari ci sama waajur. Mhm. te fu ñu dajee rek ndeysaan mu jox ma cër ormal ma te moom baax rek. kon professeur Babacar Bass maa ngi lay nuyu. di la ñaanal yal na la yàlla jàppale. Mm-hmm. yal na la yàlla dooleel yal na la yàlla suturaal barke Baye Laye. Mm-hmm. Euh, Pape dañu sant yàlla. Mm-hmm. bi nga xamante ni wax dëgg yàlla alaaxira kenn du fa dem. ñuy la woote Baye Laye bi fu mu toll nga ni dellu na gannaaw. kanam rek la jëm. ñu ngi sant yàlla ba nga xamante ni alaay fii mu ñu dëkkaloon. ci tefesu géej gi namunu fenn bay wër fenn ñu ngi toog fii rek mu ñu tegoon mm, euh, teraangay xéewalam gi ñu ciy xéewlu guddi ak bëccëg mhm. fii la toogoon daan ni na ngeen soow andoog waa àdduna waaye bu mu yegg ci seen xol mhm. du dëkk mhm. te li mu nu diggoon ak li mu waxoon lépp dara randuti su ma bañul woon mu guddi sax may la corona bi li maamu tuddoon na ko ah waaw mais damay bañ mu guddi damay bañ mu guddi ma dugg ci la neen kon wax dëgg yàlla <laughs> nga ni bàyyi lay wax na corona bi ah saa lay da da Pape euh, ima euh, Oustaz lu mu waxoon i alamu anna zamana ittaraba waxtalata wa zalika fana xam leen àdduna yëngu na jaxasoo na te loolu mooy jeexital gi fay fan zuru kayfa kaanal maa in in in te sowul baax kon nag mi ngi noonu nga dégg mu ni woon àdduna rëngi rëngi na yëngu na jamono yëngu waaye pap mag mi ni woon jamono yëngu na wax ma tey corona bi cinq continents yi fan moo ci yënguwul cëpp yëngu an ku ko yëgul ani kan moo fi doxoon boobu déclaration ni na ngeen xam ni àdduna yëngu na jamono yëngu na rëngi-rëngi na jaxasoo na cinq continents yi fi nekk ci àdduna yëpp tey corona bi yëngal na leen grande puissance yi ki jëkk yëg ñëpp yëgandoo ko kon kay jamono ji bàyyi laay ni woon àdduna yëngu na ñu ngi doog a yegg si ci àdduna yëngu na bi corona amee yëngal àdduna bépp waxam du tardé yonent lu mu wax mi ngi ñëw alif lam mim xulibati room fi adnal ard ba wahum min bi galabihim sa yaxlibuun yonent dafay xam luy ñëw waaw mu kay wax bàyyi lay lépp lum mu nu misaal ni mi ngi ñëw ci jamono rek teg nañ ci suñu bët kon ñu sant yàlla barkallah Pape ñun ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñun ñu gëm ko sopp ko bëgg ko moo taxit lii nanu ñaan mbas mi yàlla jóge ko fi waaye pour yàlla jóge ko fi dañuy dellu takkaat suñu bopp jox ko suñu borom xam nga ñu ngi naan deuxième vague yàlla dafa am fulla de dafa ne in uttum ut na in uttum utna mhm. góorgóorlu leen de bu leen delloo ca la ngeen nekke woon ma delluwaat indi beneen mbugal mu gën a tar rek moo tax ñuy coow deuxième vague alxuraan wax na lépp mhm. kon dama bëgg wax ni bàyyi laay lu mu nu digaloon rek ñun waa këram jox nañu ko ñun ñoo nga xamante ni ñoo habité fii mhm. xam nga arab professeur dafay wax baatu abi labi yére mën nga ci génn habitant mën nga ci génn habitude mais ñun ñu dëkk ak Baye Laay mu nàndatal nu ci meewam mu neex moom waaye ñun ku ne xam na ni suñu abi suñu abi yëre bu weex la ku ne xam na ni suñu abi suñu habitude mooy kalimatu laa la illallah mm-hmm. kon Baye Laay li ñu bëggoon dundal nag ci suñu ay biiru xol Pape ñoo ngi sant bu baax euh, di ñaanal njaboot gi yàlla yàlla def fi barke maa ngi ñoo nga tàggoo waaw koy jërëjëf ay gërëm la bu baax mm-hmm. groupe Futurs Médias bira euh, tàmbale suñu directeur général Birane Ndour mi ngi lay gërëm suñu directeur Ndiaga Ndour mi ngi lay gërëm Euh, Boubacar Ndour moom laayen la bu mag a mag waxoon na ma ni ma Pape ma ne ko labbeeg mun ma laayen moom ko amul fit doo ko ne ndax fit gi na ci ñoom ma ne ko ñun ñëpp am fit moom moom moom Bouba euh, Ndour Abi Ndour nu ngi koy nuyu mi ngi ñuy moom itam taalibi Sidna Limaamu Serif euh, Ousseynou Laay sunu xarit mu ndaw maa ngi koy nuyu maa ngi koy ndokkeel bu baax a baax a baax nee na ma nee na ma Ablaye jox naa ko teraanga bu bari bindal na ma ko sax teraanga gi mu la jox mais dama koy bañ wax télévision bi ak yow moom Serigne Ousseynou Laye di ko ñaanal yàlla gën ko barkeel euh, soxna Fatima laay soxna Njéeme Laye ma nga ca Baltimore ma nga Italie ma nga Amérique moom itam nu ngi koy ndokkeel euh, waa Amérique yëpp waa Cincinnati ñoom Mamran Laye ñoom ñëpp waa waa Columbus waaw waaw am na sama jigéen bu nekk ca euh, Miami nee na sopp na la mi ngi lay suivre maanaam laayeen yi nekk Euh, réew mi rawatina waa bitim réew ñoom ñëpp bëgg Gabon am na laay ni fa ne ñu ngi may yónnee message di am mbégte seen kontaante tey am na ñoo xam ne ay jooy rek lañ ma bindal ma xam ne dañu daanu dañu def ay jooy yu baree baree bari envoyé na ko di wan ni seen xol sedd na ndax li ñu soxla woon ci yow lépp indi nga ko soxna Fatou Ñang ma nga lay waxtaar ma nga Cambérène libaas laay ca Cambérène maa ngi koy nuyu sama goro sama goro xaj libaas nuyu naa la ndokkeel naa la bu baax a baax a baax nu ngi lay ñaanal yàlla yokku leen dëgëral Alassane ak seeni Lay Maxtaar moom daal euh, message yi bari na lool lool mënuma lim ñëpp waaye Lay Maxtaar yëgal ni tey sa soppe yi ñëpp bégg nañ yéeme laay mi ngi noonu euh, Baltimore suñu soppee boobule euh, soxna Mami Sarr ma nga Padova laay ñëpp rek ñëpp bëgg nañu tey laay ne ne Milan nag macha allah waaw ñëpp bëgg nañu Lay Maxtaar ñëpp bëgg nañu nee nañu daal bul yemati ci réew mi faaw nga ñëw ci ñoom it di leen bégal hmm? ci Seydina Limaamu Laay maa ngi nuyu sama directeur euh, Ahmed Mal borom Mal Inco mi ngi ñuy seetaan sama yaay yi dëkka ñoom ñëpp ñu ngi toog di suivre émission bi euh, Chérif Adramé nu ngi koy nuyu Haydara Chérif ñu ngi leen di ziyaara bu baax baax lay waxtaan daal na nañu xam naa oustaz Assane la nuy bàyyi moom itam mu ñëw ak ay ganam euh, professeur Bass incha allahu taala ñoom xaj baar ak ñeneen borom yi xam-xam daañu continuer waat télévision Futurs Médias ëttu këri diina ji ku ci xewle yaa moom télé bi loolu la président directeur général digle te mooy Youssou Ndour bi mu ko waxee yàlla euh, roof ci sunu xol cofeel gi noom ci mag ñi macha allah cofeel gi ñoom ci Sidna Limaam ak njabootam ñaan xalifa bi Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ak njabootam yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér Abdoulaye sant naa la gërëm naa la yow bu ñu gëjee gis it xol yaa ngi ko bu ñu gëjee gis it ñu ngi déggante Euh, nopp euh, euh, gëj a gis gi amul soro yëkkati arab boo xoon ne xol yaa ngi jokkoo ci sellug cofeel wa ma darranaa na yul jusuumi waxat danat xuluubun tawaynaaha ala xaalisil wuddi xol yaa ngi jokkoo ci sellug cofeel am naa mbégte lay Maxtaar ma bàyyi la sa kàddu mujj ah, fii ci jotaay bi jërëjëf El mhm. yàlla na yàlla fay la lem du dund mhm. mais Baye mii dey alayhi salaam. Mhm. yàlla seede na bu ñuy xuus ci moom du ñu doyal. Mhm. Mhm. ñun moom rek la ñu am. ñun moom rek la ñu am. ñun moom rek la ñu am Oustaz Babacar Baas benn métit rek laa am mooy bëgguma gis laayeen bu complexe laayeen bu complexe bëgguma ko yàlla mooy joxe cër ku ko soob yàlla mooy boroom dogal di dogal ci lu ko soob yàlla moo dogal sunu sang bi nekkoon démb weex tàll ñuul ci mujjug jamono. yàlla dogal ni la mu waxoon dara dañu ci ne woon na ku ñëwul pour gëmm di nga ñëw sàkku si pour xéewal sàkku si xéewal yi bu leen ma gëmul it fii la seen ruu di rot ñu takk leen ba ngeen ni ngodd indil ma leen almeer yaa ngi fii ku fi génn àdduna ci wetam lañ koy lañ koy rob te ba mu ko waxee yàgg na de boobu ay almeer amu fi woon du dëgg kon dama bëgg gën a feddali suñu ngëm gën koo yeesal te jàppali nu teyu ko xam ni bàyyi lay naxu nu àdduna te du nu nax àllaaxira man loolu laa am message bu may lancé laa yéen yëpp di ñaan appel bi yàlla bu mu nekk suñu mujj appel di gërëm bu baax ak nuyu njaboot gi ndax sànq dama yàkkamti woon dugg ci débat bi ba jotuma woon nuyoo di nuyu suñu waayjur euh, ba ne ca Cambérène di imam di Mouhamadou Mokhtar mu Seydina Mandione nuyu imam Bachir Laye di ko ñaanal yal na yàlla yokk ko wér ak sutura waaye di ñaanal Muhammadul mm, euh, Amin di suñu wayjur yàlla na yàlla dooli taxawaayam dooli ko jàppale barke bay lay waaye di ñaanal boroom xam-xam bu tedd bi di Mame Libaas Laay nekkoon nag sama wëlëre pap moom Mame Libaas newoon sama wëlëre pap lool di ko ñaanal ñëpp koy bëggee yal na yàlla dooli taxawaayam waaye it ma ñaanal sama sama wayjur suma baay suma xarit suma wëlëre nit ku civilisé kooku Euh, nit ku tedd kooku nit ku effacé kooku nit ki xam boppam kooku nga xamante ni lambul fen muy imam Mouhamadou Mokhtar borom xam-xam bu imam bu maandu boobu nga xamante ni ndeysaan bu waxee ren balaa yu xaat déwén waaye lim la wax ren di nga ko dunde ba déwén déwén jeex bànneex bi di des ci sa biir xol muy nit ku baax di nit ku tedd di borom taxawaay di ku njaboot nag te njaboote yaatal ñëpp ci mbootaayam bu yaatu boobu yal na yàlla dolli jàmmam dolli suturaam dolli xéewalam imaamu du taar ñi ngi lay feddali suñu xaritoo sa diggante doom ji ak yow yal na la fi yàlla yàggal te la mbir mi dafa am boroom ndax ku ne xam na ni ginnaaw sëñ Ablaye général Baye Ndiir moo mbir mi di ko doxal Oustaz Daak Thiaw kontaan na sama général boobu nam naa ko loolu maa ngi wax Pape ja nekk na ma recevoir fan yi ndeysaan nga xam dañuy wét di waxtaane lu am solo muy mag ju baax yàlla na ko yàlla taxaw te jàppale ko yàqul dara ci liggéeyu mag ñi waaye bu ma fa jógee ma yi nag sama cër nga xamante ni moom la ma yàlla booleel muy boroom daara ji nga xamante ni ci xam-xam lay xëy ci lay gont mm-hmm. muy nit ku tedd mm-hmm. di Serigne Cheikh Mbacke lay mm-hmm. na yàlla yàggal taxawaayam te dolli ko jàppale dolli ko sutura ndax liggéey bii mu liggéey ci diine ji xam-xam bi mu def ci njaboot gi bañ ko ba taxawal institut kooku ku nekk amel na ko jërëjëf kon Serigne Cheikh yàlla ko yàlla taxawu yàlla na ko yàlla dooleel yàlla na ko yàlla yeggale te téyel ko ay ndëggoom ba mu yeggale barke Baay Laay waaye nag di ñaanal bu baax limaamu Thiaw di suñu suñu mm-hmm. di suñu mag di suñu xarit mm-hmm. di suñu wëllëre mm-hmm. di nit ku tedd mm-hmm. wax naa ni ku jubboowul ak limaamu xaw ma koy jubbool maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm sëriñ jal bu baax jal caw suñu xarit boobu suñu sëriñ boobu waaye fàttewuma sëñ Idrissa mi nga xamante ni ñoo bokk ndey di borom taxawaay nga xamante ni njaboot gépp yi tënk na leen ci siraatu mustaqim ba benn xale rëcceetul yàlla na ko yàlla fay te taxawu Idrissa sa liggéey rafet na jërëjëf bu ko defee ma gërëm ñi ma àndaloon sama xarit Ibrahim sama jarbaat libaas euh, Baye Issa xalifa Diouf Oustaz Dak Thiaw ak xale yi ma àndaloon lépp ñu gunge woon ma tey ca Wakaam ndax fa laa yendu mhm. waaye di ñaanal sama xarit boobu ma fa fekkoon muy libaas sëy di limaamu ca wakaam ak euh, alimata di soxnaam mhm. ndax tey ku ne xam na ni teral nannu mhm. teral nannu limaamu di ku baax di ku tedd maa ngi nuyu bu baax Ousseynou di nuyu njarka di nuyu njaboot gi di nuyu suñu yaay jooju waaye nag du ma ca jokk te nuyu ma sama xarit yi nekk Italie manuma lim ñëpp nag mais wax dëgg yàlla fa may dal di maam aada ak jëkkëram maa ngi leen di nuyu leen gërëm li baas ñaa ak jëkk ak soxnaam maa ngi koy gërëm di ko sant di fa di ñaanal bu baax samay jarbaat Pape Seck libaas Seck yàlla na yàlla taxawu leen te suturaal leen te jàppale leen barke bàyyi lay ñaanal nag sama xaritu bopp di si Njaay di sama xarit loolu léegi laa ko jot téléphone mu may yónnee ay basin yu rafet di matériel yàlla na ko yàlla fay mhm. fàttewuma alaaji aldemba aan sama xarit ndeysaan ma nga ca Allemagne yàlla fay ko maa ngi nuyu de passage sëy naa ba di nuyu daal njaboot gi yëpp ku lim juum yàlla na yàlla doolu seen sutura te doolu seen xéewal te yàlla taxawu leen te aar leen ku ma tuddul rek na nga xamal ni sama xol ak sama xel tuddu na la seeni sàll maa ngi koy nuyu moom it yàlla na ko yàlla taxawu di gërëm ñëpp di sant ñëpp nag ku fàtte rek nga xamante ni dama rëcc bii jotaay bii su ma waay jur ju baax ba sëñ Babacar Kebe laa ko déjee ndax sonnoon man loolu mais moom dégg naa daan ñaanal chef d'état yi di yoroon ay secret yu doy waar <laughs> mais ndax secret yi da ko yóbbaale am na yu fi des <laughs> <laughs> mais a jaaxal daan nga ñëw ci moom mu faj aajo yi yooyu nag mi ngi fi dégg naa maam laay yow day sanga waaye xam nga sama dara ump la yow ñoo waaw yooyu mi ngi fi lool faawu téléspectateurs yi ngeen ko yàlla na yàlla yàlla na yàlla yokk leeram moom itam amiin amiin Pape da kay di ñaanal sama waajur lépp la yàlla na yàlla koy ñaanal baax si Babacar Kébé yàlla na ko yàlla dooli leer di ñaanal sama yaay yi yal na yàlla oyofal suuf ci kawam waaye di ñaanal libaas mbeng di ñaanal libaas mbenk yal na ko yàlla yërëm waaye di ñaanal sama xaritu xol libaas aan yàlla na xel yàlla na xippee illa yi na yàlla na yàlla fay ko coonaam ci diine ji libaas ànd yàlla na ko yàlla fay waaye di ñaanal sama benn xarit du ko fàtte mukk libaas sàmb yàlla na yàlla dool njëggalam te yàlla oyofal suuf ci kawam Pape bërki démb ba dama doon maye sama doom mhm. euh, pend ma ngi ca néegu sëyam muy doom ju bëgg doom ju doom ju ma jàppale doom ju ma dimbali wax dëgg yàlla ma koy ñaanal sëyam boobu yàlla barkeel ko may ko ci njabootu barke te yàlla taxawu ko barke Baye Laye Penda ton papa te remercie infiniment je dis infiniment maa ngi lay remercier guddi di la remercier bëccëg di remercier sama njaboot gi yëpp sama doom yëpp remercier aussi sama ay soxna ci seen taxawaay ci man fàttewu ma kenn fi ñu jógee léegi rek ñu ngi nuy teral fii ci Sacré Cœur noonu lan koy defee ci kër yëpp kon ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla barkeel ñëpp kontaan naa yàlla na ko fekk ay déwéni déwén ku ma tuddul rek nga xam ni jamono ji moo xat gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala rahmatullaahi wa barakaatu. am nañu mbégte maam Abdoulaye Kébé Penda ñu ngi lay ñaanal sa sëy boobu yal ko yàlla barkeel. sa baay ñaanal na la ci ah, ci pénc mi mooy ngërëmal way jur moom boo ko xasee am jeex na la nga cay dolli rek mooy am sa ngërëmal boroom kër yàlla barkeel sa sëy gaa yi bayre nag mooy bayree ah. sama sëyu doom bi Penda. Penda <laughs> moom laay wax yàlla barkeel sëyam amiin Penda mais nag maa ngi nuyu nag sunu laayeen bu mag bi ci télévision Futurs Médias apu laay lay Maxtaar Alsaan ak seeni sunu xarit jeex tàkk ci Seydina Limaamu ak njabootam waaye soppaloo loolu nag ma Ablaye euh, madame ñaa maa ngi lay nuyu Adja Ndioba moom it yen la nu ngi koy ndokkeel bu baax a baax a baax euh, Pape Samb nuyu naa la moom tamit soxnaam laa laa laayeen la na gërëm nañu leen sox euh, ndokkeel nañu leen yal na yàlla defal leen jàmm euh, Chérif Ousseynou Laay mi ngi noonu am nañu mbégte yàlla na ñëpp am jàmm mënuma message yëpp waaye temps bi xoj nañu waaye ñu ñu yónnee message ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax yal na yàlla defar sunu mbir àddina ñaan yàlla it mu defar sunu mbir yi àllaaxira ci daraja yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan réew mi di réewum Sénégal yàlla dafi jàmm yàlla dolli fi barke ñaan yàlla musal ñu nag ci musiba ak balaa kasara gàttu fan déegu ñaaw déew mbetteel gàtt wër sa gàcce yàlla nañ ci yàlla musal ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam maam Abdoulaye Kébé jërëjëf Alaj Vieux Diouf moo nekkoon ci régie bi nu ngi koy gërëm bu baax a baax Haj Mansour moom itam Abdourahmane ñoom ñëpp euh, promotion nu ngi lay gërëm bu baax a baax nuyul ma euh, ñëpp rek hmm? gërëmal ma sama benn soppe. maam laay ne benn soppeem. muy Baye Mbaye. Baye Mbaye Baye Mbaye Wade. Baye Mbaye Wade. waaw ak ay soxnaam. Mm-hmm. nga gërëmal ma ko. Mm-hmm. santal ma ko. incha allah moom jugee na États-Unis ngi fi. ñëw na wallaahi yàlla na ko yàlla barkeel. amiin dafa sopp lool. ndeysaan bëgg lool. sama xarit taxaw lool. Mm-hmm. yàlla na yàlla dolli sutura. amiin amiin yàlla dolli ko jàppale moom allah jeeg njaboot gi barke Baye laay kontaan naa. jërëjëf Pape gërëm bu baax Pape Mor moo nekkoon ci caméra yi moom itam El jël Vieye jërëjëf gërëm nañu ñëpp ndokkeel nañu ñëpp ziar nañu ñëpp yàlla na ñëpp am wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.